ah alaaji dégg nga la. Serigne Délégué. Délégué la xamul fu muy teg tànkam. <laughs> alaaji. waaw ah. bàyyil Matar. non daal ci caaxaan la ne. Serigne de. sa waay la de. ci caaxaan la ne. Matar ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla jàmm bàyyi leen nga nuyoog internautes yi ak auditeurs yi. ñu ngi leen nii saa di leen ziar di ziar ma jigéen di la ziar di saa di leen jaajëfal di leen mm-hmm. encore une fois félicité ci bu am solo bi nga xamante koy amal nuyu xalifa général des Mourides ak mm-hmm. Serigne ak mboolem njabootul Cheikhul Khadim bi ak kilifa diine yi fekk baax ci gox bi ak ci biir réew mi yëpp soñ jërëjëf Matar euh, ginnaaw bi ñu la jaajëfalee nuyu sëñ Sidi moomu nga doon wax euh, barki démb yaa ngi ma doon junj benn cas boo xam ne amoon na fi foofule. Mm-hmm. Euh, gannaaw bi fekkoon ñu yoroon benn élément boo xam ne dafa def trois jours moo taxoon mu nekk mbir mu yéeme moo xam ne waaye ci liggéey bu rafet ak taxawaay bi nga xam ni e, ñii sëñ mun Muntaxa dénk dëkk bi dafa mel ni saytu nañ ba lu bon li nga xam ne saa su duggee Touba rek li sëñ Fall doon wax naan roq baa ngi fii di ko lonk génne ko mu mel ni gisaat nañ ko foofu la ca tuubaa mbir moomu lan la waaw sooy bu xam nga man ngi la doon wax naan la euh, am na ay waxtaan yoo xamante ne jugoon na fi mu coow ak ñaari tur yi. Mm-hmm. nga dégg ay organisation yu ne dañuy jóg di seeti Serigne Mountakha pour waxtaan ceeg moom ak ainsi de suite affaire yooyu ndax ay taalib yu jugoon sax ne leen. Mm-hmm. ñoom euh, jarul ñu fi ñëw di indi Serigne Mountakha di wax ak moom yenn wax parce que buñ ko defee après dañ koy jël di ko collage ak di def taal euh, drapeau borom ñaari tur yeeg yooyu. Mm-hmm. Touba ñoom loolu nee nañu organ organiser nañ ko. réglé nañ ko féete na boor loolu nag firnde gi fa day faral di am. Mhm. ndax Touba dafa am ay kuréel yoo xamante ne dañ koo taxawal mu seq njaboot sëriñ Touba gi. bokk na ci kuréel yu mel ni Muxaddamatul Xidma nga Muxaddamatul Xidma nga xam ne moom la ñu dénk wa sàmm war may jumaa ji. Mhm. ak bépp bërëbu jaamukaay yàlla ak këru dëgg gi nga xam ne moo di bàq ya. Mhm. gis nga kuréel yu mel ni euh, Touba ca kanam nga xam ne ñoom dañuy jox di dox. pour lijjanti koppar yoo xam ne dañ koy defaat ci dëkk bi. Mm-hmm. am na yeneen kuréel yoo xamante ne bari na buñ ko doon lim du jeex. Mm-hmm. yëpp yoo xamante ne ñoo seq euh, dëkk bu sell bii di Touba. Mm-hmm. Euh, li nga xam ne nag nemmeeku nañu ko mooy waa Moukhaddamatoul Khidma googu ñu sàmm ñu dénk euh, li nga xam ne moom moo di saytu war may jumaa ji. dafa am benn xibaar boo xam ne jot nañ ko parce que ku ne xam ne na ñoom. am nañu ay taalibe bokk ay kuréel gi bokk na fu ne ci àdduna bi ci biir réew mi mm-hmm. am na ñoo xam ne bokk nañ ci Moukhaddamatoul Khidma nekk ci yeneen i gox mm-hmm. donc ñooñu dañuy liggéey en contact di nekk en contact direct ak ñi nga xam ne ñoom ñoo sàmp ñoom lañu jënk jumaa ji bi ñu ñëwee nag dañoo gis ne am na kenn koo xam ne dañ koy jiiñ ne borom ñaari turi la ñu war ko fee denc keroog ci àjjuma mm. ñoom ci la ñu informé këru dëgg yi nekk ci dëgg mooy ci ci dëkk yëpp bàqe muy bàq ya muy daaru marnaan muy daaru minnam muy daaru salaam foofu nga xam ne kuñ fay denc dinañ xam ne yow mi ni nga fa denc dañ lay dañ lay dañ euh, fichier mm. nga am numéro am lépp donc foofu mënoo ñëw rek dugg fa nii rek jël sa néew rek denc mm. parce que balaa muy denc dèjà dinañ def enquête ndax dafa nit wala dafa dafa te loolu yëpp dañ ciy lëkkaloo ak police bi ak commissaire gendarmerie. Mm. bu ñëw bi ak présenté benn si ñu gaañu gaañu rek déjà dañuy ooy police ak takk der am na ku ñëwoon ñu doon fi indi néew boo xam ne dafa dóoroon jabar ji ñu ne. Mm. ba ñu présenté ay signes yoo xam ne signes la ñoom automatiquement dañoo woote police. Mm. ñu ñëw indi ko arrêté enterrement bi daal di koy jël euh, euh, ubbi enquête teg loxo waa jooju. donc ki démb nag biñ leen ko dañ leen xibaar ne leen am na borom ñaari tur yoo xamante ne. wala woo kuñ koy jiiñ ne ñu ngi koy indi ñoom ci Matar ak équipe ak sëriñ ñu nga xamante ne ñoo yor jumaa ji nga xam ne suñ fàllu Mbàkke ñi nga xamante ne yàlla y kese lañ euh, ñooñu dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne ñoom suñ fàllu kenn xamu leen ci dara lu dul liggéey sëriñ Tuubaa yàlla yonent bi mm. nekkuñ ci lenn ay caaxaan moom moo amoon yaa ngi fàttaliku ci jamonoy Sonko problème mm. ya amoon ca jumaa ja ñoom ñoo wane woon engagement ak détermination bu mat sëkk boo xamante ne état yóbbulu leen dara lañ waroon lañ war may dañu waroon respecté jumaa ñoom ak sëñ bu Bousso moom la ñu defoon donc xamee ci Sonko xamee wuñ ci Macky te boobu Sonko condition yi métti woon mu nekkoon fi nga xam ne moom mooy ci ci ci opposition bi léegi bi ñu ñëwee dañu ne leen ñun de dafa am information yoo xam ne dafa am information yoo xamante ne dañ leen koo signalé ne leen am na koo xam ne borom ñaari ñu koy jiñ mu jóge yëngal ñu war ko fee denc. yëmbal léegi nag ñoom bi bi nga xamante ne yegg si na ñoom dañoo dañoo dafa information yu ñu jot ci kii. waaw léegi nag mënu leen koo denc. da ngeen ñuy may ñu vérifier. Mhm. ñu ne leen acca bi ñu ubbee nee nañ gis nañ ay mandarga yoo xamante ne. Mhm. Euh, comme ku génn àdduna nañ ko war warmaal bëgguñ sax tudd ci rajo bi. waaw gannaaw gi aussi ñoom ci la ñu laaj njabootam. Mhm. te leen est-ce que mën ngeen a firndeel kan moo ci mën a seede mais ci jaboot gi aussi. am nañu firndeel ne doon bi ñuy dund amoon na màndarga yooyu. waaw mandarga yi ngoo ngi borom ñaari tur ba noppi da doon amati ak ay jigéen saa su ne. Hmm. loolu moom moo tax. waa mu xadimaat xam ne leen kon yéen mun leen koo seede wóoru leen garanti wu leen ko. Hmm. léegi li ñu gënaloon mooy ngeen jël ko yóbbu feneen ngeen dem denc ko. maanaam nga baal ma nga maanaam nga baal ma foofu bala ngaa continuer bi ñu ubbee ñoom pour vérifier daal. Euh, gis nañ lu leen di firndeel ay mandarga yoo xam ne jàpp nañu kii daal góor la ak leneen. waaw bi ma arkan bi ma jokkoo ak moom moom ci nga xam ne ci ñi doon ubbi ñi bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ko doon vérifier mm. leeral na ma loolu non mais munu munu ma détail yooyu yëpp munu ma ci waaw waaw dëgg la xam nga ku génn àdduna voilà dëgg dëgg mais li leer daal mooy bi ngeen ko waxee mbokk tamit ñoom kon nañ loolu mais mais mais léegi ñoom vraiment am na mandarga boobu te doon na ànd ak jigéen maanaam ci firnde daal mbokk yi weddi wuñ ko confirmé wuñ ko à cent pour cent mm. comme ñu ne leen nag wóoru leen ñun Touba fii dafa am lu leer. Mm. lu leer moo fii tax ñu denc ko. Mm. nañ ko jël yóbbu ko. macha allah ci lañ leen accompagner waat. Mm. te duñ la bàyyi dañ lay accompagner ba nga jël autoroute bi. ba nga génn dëkk bi waa ba nga génn dëkk bi. loolu mooy gunge doog a retourner si. voilà donc kon xam nga kuy wax borom problème mu problème mu ñaari tur yi. kon ñu doon wax naan dañuy seeti sëñ Muntaxa ak yooyu nañu xam ne Touba moom. Hmm. bu ñëpp defoon ñu fu Touba. waaw carte gi dina leer. dëgg la loolu moom je pense que. saa hmm. xam nga ne gars yi réglé nañu ko sooy bu. dëgg la donc c'est l'occasion ñu gën a ñaax lii day tax rek. Hmm. ñu gën a ñaax xale yi nga xamante ne ñu ngi ciy jéem a dévier hmm. ci dugg wala di def naka su dul noonu loolu parce que mujj gu rafet dafa baax daal dëgg la imagine nga dem ba génn àdduna amul fuñ la denc waaw loolu na lépp loo xamante ne yaa ngi ko doon mbébét wala nga koy jéem a def hmm. nga bàyyi ko parce loolu daal baaxul te hmm. kenn bugg ko te gis dafa mbugaloon ña ko doon def macha loolu appel boo xamante ne daal dañ koy lancé nga xamante ne ñoom ñoo am idée wala ñu ciy jéem a fooy di ci dugg ba ba dévier di ànd ak ay jigéen ak yooyu ba dévier même di ànd ak ay jigéen def yoo xamante ne boo génne àdduna mën na laa andi problème. Mhm. vraiment ko am na solo lool euh, sooy jërëjëf Matar liggéey bi am na solo macha allah li nga ci euh, joxeet xam naa ndaw ñi dégg nañ ko ñi ci nekk. maanaam daal euh, dëkk bi sécuriser nañ ko daal su la déggee te itamit am na ay matuwaay yoo xam ne bu ñu déggee benn xibaar dañuy informer ñi nga xam ne ñoo yor kër yooyu ñuy denc nit ñi wax leen ni mhm. leen diw sàngamkat jàpp nañ mi ngi ñëw kon loolu moom sécurité am na ci dëkk booba nga xam ne mooy Touba. Mhm. loolu sécuriser niñ ko sécuriser sax dafa ëpp dafa jéggi dayo gis nga même jumaa ji ci bopp mm. boo fa demoon taxaw fa di jaay mm. boo defee deux secondes balaa ngaa pare nit dina la fekk parce que lépp dañ ko def ay caméra am ay télévision comme ni Makka ak Medine mel. macha allah donc te ñooñu caa caaxaanuñ ci politique ci kafuñ ci réewuñ ci. Mhm. maa lay nettali léegi problème mu bi ñëwee nga dégg ay politiciens yu jugoon ne. Mm. dafa ñëw di politique si jumaa jeeg ainsi de suite te moom mm. bi ñëwee dañu ko leeral ne ko. Mm. comme da nga bëgg a julli si. ñaar nit ñett nit lañ la juróomi nit dañ la may nga àndal mun leen juróom bari na moom Ousmane Sonko moo ko waxoon ne leen ñett rek laa euh, moom mooy moom mooy sëñ sëñ sëñ Cheikh Coro Mbàkke waaw ñoom lay àndal ñu ñaar surtout Sëriñ Tuubaa dugg julli bi jullee ba noppi ñu ne ko mm. léegi nag da ngay génn euh, mu ne dama bëggoon siyaare sëñ bi waaw mu xadimaat xi ma ne ko loolu de protocole sëñ bi la mm-hmm. parce que lu ne dafa am protocole xale mm. ñu ne bi ñu demee di bugg pour siyaare ñu ne ko sëñ bi mu ngi ci xabru bi mu ne xaaral ma toog ci daaray kaamil ba sëñ bi siyaar ba pare mm-hmm. fa toog ba sëñ bi siyaar ba noppi mm. mu doog a génn sëñ bi dem na lu yàgg mu génn doog dem mais Tuubaa nag bu ñu yégeen Ousmane Sonko génn ñëw di ko di ko di ko di ko sargal loolu moom xam nga mënu ci dara te gis nañ ko aussi bi mu ñëwee si jumaa ji génnul di tàcc génnul si biir otom la dugg ñun dañ koo topp ba fañ doon dal nga xam ne jannatu la foofu la nit ñi nag mobilisation bi amee donc macha allah donc loolu yëpp moo xadimaa donc day liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def tey sax dèjà mm. tey la CDD bi comité local de développement ngir waajal màggalu Touba. incha allah ñoom ñëpp kuréel yëpp dañuy ñëw teew tey préfet bi moo ko woote dañuy toog waxtaanee. Mm-hmm. màggalu Tuubaa gi nan lañ ko war a tëddalee ak ñoom yi lan lañ ci war a liggéeyee d'accord moo xam moo xam maata xit nay moo xam mairie bi moo xam kilifa diine yi mm. moo xam comité d'organisation bi nga xamante ne sëñ Bass Abdou moo ko jiite macha allah ki nga xam ne mooy sëñ Ousmane mooy coordonnateur bi aywa kon ma taar xam naa lu yees ci ndaje moom rek daan ci dellu siwaat incha allah jërëjëf jërëjëf aywa jërëjëf Sarr Sarr Sarr Sarr yàlla na yàlla fay la jërëjëf saar mi ngi noonu ñu ngi koy gërëm bu baax moom Mamadou Matar Sarr ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy amal foofule dëkk bu sell ba di Touba ma jigéen kon ni ko Matar waxee daal euh, information bi mooy kooka saytu ba ca war def nañ ko euh, poser ay question ginnaaw bi ñu ubbee xar kanamam xool euh, posé nañ ay question ba ñu amul leen doy gunge waat nañ néew ba ba mu génn dëkk ba ñu ni ko njoorawal jàmm mm-hmm. la ko waral nag mooy seen xel dalul ni borom ñaari tur la waaw sooy bu wax dëgg yàlla lii de mooy jox liggéey àkkam liggéey moom lu mu mënti doon rek mm. euh, jox ko ak mm. jël say responsabilité mm-hmm. que ñoom bi ñu demandé euh, famille bi ñoom waxuñu dara loo xamante ne ni mën nañ ci tënku mm. donc mënuñu wax ni loolu la mënuñu wax ni tamit du ko doon ñoom itamit am nañu sañ-sañu mm-hmm. jël seen responsabilité puisque xamuñu waaw waaw te euh, ñii nga xamante ne nii sooy bu ñoom ñooy yàlla dafay def ñi nga xam ne dañ leen di woowee borom ñaari tur yi dañu génn àdduna hmm. nañuy jël seen i responsabilité ñoom itam ñu xam ne lii borom dëkk bi bugg ko hmm. bu ñu ko fa jéem a yóbbu dañuy dañuy dañuy nës nësal xam nga dañ naan koo sang ba muur ko kenn du ko muri mais dëkk jàmbur loo fa def loo xamante ne ni borom eh, dëkk ba daf koy aay borom dëkk ba aar na dëkk yaa yaa ngi tooñ te mm. aussi man mii sax son bu ba may jàng mm. Thiès jamono yi ñu doon wax góor jigéen boobu noonu ñu suuloon sulli ko ca mm. armeria man loolu dama ko fekkee ah, loolu sama maam nettali woon na ko boobu yaa ngi jàng <laughs> sama maam nettali na ma ko wallaay ma fekke ko nga xam ne coono boobu noonu nga xam ne Sénégal dal naa ko dégg ca ndawa waaw ndawa ah dégg ko ca ndawa alaaji nag yàgg fi yàgg yàgg yàgg yàgg boobu nag alaaji yow tamit. Ah, kon maa ngi nekk si càmbari jaar kon ndawa nettali na la ko alaaji. ndawa nettali na la ko. te ndawa laak daal diglu ne ndawa nettali na ko. mais alaaji loolu yàgg boobu mi ngi jàng man de wax dëgg yàlla dañ ma ko nettali billaahi lii dañ ma ko nettali. Ah, mais man nag dama fekke woon. waaw waaw waaw kay ñun kay la. <laughs> kay weddi wuñ lay weddee lu ñu loo xam ne bii ñun xam fekke wuñ ko. <laughs> kay say kii. waaw bu je passe <laughs> kii naqari na deret <laughs> ah, déet wax dëgg fa yàlla nag soxna mu yaa fekke yow li nga fekke waaw ñun ñu nettali ñu ko dañ ko maam da ko netti man ndaw mës naa ko dégg mu nett li ma lii ñun ñu yàlla may ñu ñuy dox ba bokk ak waaw ku ko fekke ku ko fekke wax dëgg yàlla lii sant yàlla la alhamdulilah alaaji yàggul waaw baax na merci jërëjëf alaaji ñëwal trois minutes booba yaa jàng boobu ba ngay jàng macha allah jërëjëf. sukkuraan toujours yàlla rek di ñu leeralal. alaaji waaw góor jigéen yi nag ñoom dañoo war a bàyyi yàq essence bi. ñi leen di yóbbu ñu ñu fi bàyyi sax laa wax quoi nag bàyyi yàq essence bi. ñu dugalee ñu génne waaye saa ñu génnee. wax dëgg yàlla donc dañ ko lijjanti rek fuñ ko loolu xam nga ay góor jigéen moom wax dëgg fa yàlla moom sooy bu. Mm. Eh, jarta sori. Mm. waaw foo wàqi suul moom jafe moom waxtu suuf waaw nañ koy kii rek dëgg de pourtant ah wax nga dëgg de euh, mais kuy nangu kuy nangu ñu wàqi ko ci sa suuf yi ko suuf ah waaw xam nga loolu xam nga doon nangu ku koy def sa ginnaaw kër mais waa ji ma lay wax dégg naa hmm. terrain bu mu jëndoon la ñu hmm. mujjee dem gas foofu suuf mais terrain bu faatoon moomu ko ah, boo xësee faatu moomoo terrain bi ah waaw mooy ki ngay wax noonu ah, mooy lu yàq la góor jigéen nu muy amee doom mais am na góor jigéen yu am ah, jabaram doom am na kay sa am doom ah, jabar yor doom am ah, ñu seen jabar ñu seen lépp <laughs> waaw amoon nañu benn ci jomet ndaw si ndaw a nekk góor am na ñoo xam ne ñu ngi leen di góor jigéen mais tamit ñu góor jigéen am na ñoo xam ne dañoo yor bind nu jigéen dañoo dañoo la yor kii comprendre nga efféminé efféminé ba noppi yaroo ci ay kër yi kii di fecc fecc yu kii di ñu di ñekkee xale ñu leen yënd ay poobar ak ay kii ay xam nga ay defal lii comprendre di leen def loolu liggéey jigéen ba ñu tàmm loolu mais duñu góor jigéen am na waaw dëgg la dafa am ci ay nit ñoo xam ni defuñu leen ni kii mais boo leen gisee mm-hmm. euh, mën nga leen a wax ne góor jigéen lañ mais mm-hmm. duñu góor jigéen mais am na ñoo xam ne ñi ngi ak seeni i jabar ak seeni i doom mm-hmm. ñooñu fekk ñoom la noppi nekk góor jigéen boobu mooy bi nga xamante ni bii mooy bu bon bi bi tubaab yi bëgg a forcer gars yi. nit ñi loolu la quoi. loolu mooy li nga xam ne mooy li boobu nag mooy bi bon parce que kii bii moom bon suñu bind nit la quoi suñu yàlla mooy bind nit am na suñu waaja di xaj Fallou Cissé yàlla na ko yàlla yërëm doon na wax ni mhm. euh, am maanaam jigéen ju ci nekk daal am na façon bopp bu ko sa borom kër bëggee di ànd ak yow mhm. xamal ni am na si ñu góor jigéen waaw ah, ah, ah, waaw c'est vrai am na si am na yoo xamante ni bi boo xamante ni bi yaa ngi koy kii waaw mm, góor la yoo xam ne suñu borom dafa am noonu am bu boo jigéen gu ci am jëkkër mu di la bëgg a wax yan ne xamal ni góor jigéen bu bon a nga nekk yàlla billaay ala déet waay billaay jigéen bu bon nga nekkal ah baal bu ñuy lim kon boole ni bu ñuy lim boole ko ci waaw boo booy boole ci fi mu toll nii kay ku ñuy déglu ba borom kër mos mel nii booy ba nga jàpp ni góor jigéen a ngi ah, loolu yi góor jigéen di du leneen mm-hmm. waa voilà génn wala ok kon kooku bu faatoo bu jël ñu ko yóbbu ah, Tuubaa wala Tiwaawan kooku bu faatoo nañ ko sànni fii